ñuy artu kilifa yi di ci jiital président Macky Sall lu tax ñuy artu kilifa yi di ci jiital président Macky Sall moo di ne lii buñ ko bàyyee mu wéy dina fi amaat Sangalkam dina fi amaat Mbaan dina fi amaat Fanaay turu dëkk yooyu bu ngeen ko déggee di ngeen xam ne dëkk yooyu yépp dañ fa rey nit ndax coowal suuf bëgguñu beneen Fanaay bëgguñu beneen Mbaan bëgguñu beneen Sangalkam bëgguñu ko Kër Moussa bëgguñu ko Medina Wandifa or buñ ko seetaanee la amoon ca dëkk yooyu moo nar a am Medina Wandifa moo nar a am Kër Moussa benn ñaareel bi li ñuy gis li ñu dégg fii te ñu dégg ko ci yeneen dëkk dégg ko Medina Wandifa ak Kër Moussa gangstérisme foncier la banditisme foncier la et c'est scandaleux c'est tout simplement inacceptable fii entreprise la wala bokk benn njaboot la filfili fii benn commune la maire la mairie waaye yooyu yëpp mënul am sans la complicité de l'État mënul am sans la complicité des agents de l'État mënul am te fekk ne bandi yooyu gangster yooyu woyu yooyu lëkkaloo wuñu accueille agents de l'État avec des agents des des services des impôts et des domaines moo tax ñu ngi wax état bi na delloo ci xelam ñu ngi wax état bi na def assainissement en son sein ñu ngi wax état bi na raxas lu mu war a raxas ci biiram ah jamono président Senghor fekkewu ma ko juddooguma woon waaye dégg naa ñuy nettali ne jamono président sengoor bu nawet jeexee te béykat fayul borom dañ ko doon puudar bàyyi dem ba fekkee nga loolu jamono sengoor béykat bu fayul borom dañ ko doon puudar état bi da ko doon puudar ah waaye de mel na ni ragal naa ni dinañ fàttaliku ne jamono président Macky Sall béykat yi dañ doon nangu seen suuf sàcc seen suuf ba pare ñu tëj leen sàcc seen suuf ba pare ñu tëj leen waa Médina Wandifa bii ci seen xeex bi tëj nañ si juróom benn nit ñu toog weer kaso yàlla bu mu am Kër Moussa waaye bu ñu moytuwul fa lañ jëm bu ñu moytuwul dina am Kër musa juróom benn nit ay béykat ay doomu béykat ñu tëj leen un mois ndax coowal suuf dégg ngeen coowal tóobeen bi lu ëpp ñaar fukki nit tëj nañ leen kaso est-ce que xam ngeen ne jamono jii may wax ak yéen ca Ziguinchor dëkk yu naan ay baraf ay ñaagis am na si ñeenti nit yu ñu tëj ça fait plus d'un mois ndax coowal suuf boobu moom kenn dégg ko effectivement ñi war nañ wax mais Médina Wandifa mi Kër Moussa ñaa gis Sénégal la bokk wala bokkul Sénégal nous exigeons la libération des quatre prisonniers de gis yi doon xeex ndax coowal suuf bu ñu moytuwulee li amoon fanaay li amoon mbaan moo na a am kër Moussa ndaxte nag xaj boo koy puus sax di ko puus sax bu sësee mu song la bëgguñu mu am waaye bëgguñu tamit leneen am yaa ngi di fàttaliku Fodé Ndiaye policier bi nga xam ne moom la ay manifestants rayoon ci jamono mouvement m bëgguñu loolu am bëgg lu ñu ko gendarmerie bëgg lu ñu ko police mais waaye bu ñu nekkee di sës di sës di sës population yi Kër Moussa Medina Wandifa Guéréwoo Kiñaabuur Kër sàmbakan Ñaagis Toobeen Kafountine foo dem mu am jafe-jafe suuf ba kañ bu ñu moytuwulee musiba dina fi am de di jëfandikoo gendarmerie ak police pour nangu suufu jàmbur dina am fu muy toll askan wi dootul ragal police dootul ragal gendarmerie te du doon ci askan wi waaye ci kilifa yi nga xam ne ñoo matadi toog di sàcc suufu askan wi di aakimoo suufu askan wi pour am alal ak pour financer ñoom seen campagne électorale te loolu du dëgg yoon. ñu nag waa FRAPP ñu ngi ànd ak waa Medina Wandifa ba keroog ñu leen di delloo seen suuf ndaxte nag mënoo nekk maire jël suufu commune bi yépp nga def ko ay lotissement pour am xaalis pour ut xaalis ñun waa SRAB ñu ngi ànd ak itam waa Kër musa ndaxte kat mënoo jël loo xam ne moo mel moomeelu lu mu néew néew néew néew ñaar téeméeri njaboot deux cent familles neuf cent hectares nga bugg jox benn nit fii laa fi waxoon ne ay titre foncier jamono colonisation wax dëgg yàlla Sénégal bi mu amee indépendance am dafa waroon tas titre foncier yooyu ndaxte xam nañ ne titre foncier jamono colonisation wax dëgg yàlla colonisation mais tur bi rek leer na colonisation mooy nooteel ki la doon noot ba am ci sa suuf mais yow boo moomee si bopp da war a tas titre foncier yooyu fii laa fi wax ne nekkoon naa fi Tambacounda ca bërëbu wasadu mu am kenn koo xam ne dafa brandir titre foncier 1947 gars yi Séné mu Sénégal am indépendance 1960 titre foncier boobu di wéy ndax lan ñi fi jël nguur gi 1960 dañoo déggoo ak tubaab yi pour lépp li fi tubaab yi amoon bu ci kenn dindi dara ci loo xam ne nooteel la ko tubaab yi amee 900 xaw ma même benn mètre carré bi tubaab yi am ca Kër Moussa jamono colonisation 1960 dañ ko waroon neenal. dañ ko waroon maasale waxuma ne nag ñu naan neuf cent mètres carrés ñee naan neuf cent hectares donc ñun waa FRAPP ñu ngi ànd ak waa Médina Wandifa ànd ak waa Kër Moussa ci xeex ci ñun waa FRAPP nee nañ waa Médina Wandifa ak waa Kër Moussa dañoo war a joxante loxo ci xeex bi ndaxte xeex bi benn la dañoo bëgg a aaki seen suuf bu fi kenn xool mbiru waaso amul joolaa amul séeréer amul pël noon bi benn la mooy aakimu suuf bu fi kenn xool mbiru diine ak mbiru maanaam tarixa noon bi benn la mooy dañoo bëgg a aakimoo suufu béykat dañoo ne ñëpp ñi nga xam ne ñu nekk ci senegal te am jafe-jafe suuf dañoo war a joxante loxo pour ànd daan noon yi nga xam ne moo raw coronavirus ñu ngi dégg coronavirus naam am na jàngoro la gars yi sol leen seen masque ak ñoom seen waaye am na virus bu gën a métti coronavirus. fu mu nekk nii foo dégg ku yuuxu coronavirus nga dégg corona suuf non nañu waxante dëgg taal leen rajo yi taal leen télé yi fu ngeen dégg coronavirus dégg ngeen corona suuf ma ne am na béykat yoo xam ne am coronavirus moo leen gënal am corona suuf ndaxte boo amee coronavirus sax sa tool d'accord dina meññal loo xam ne dina joxe dépense waaye bon bu ñu dëlee bu ñu jëlee en fait sa tool da ngay dee coronavirus c'est pas forcé nga dee ñëpp ñu am coronavirus deewuñu waaye béykat boo jëlee suufam dee na béykat day am suufam sax am jiw sax mu am jafe-jafe boo nangoo suuf yi mooy rey nga ko dama ne li ëpp ci béykat yi am nañ béy am nañ suuf te bokk nañ ci ñu gën a ndóol ci Sénégal ndeysaan boo nangoo seen suuf mooy doggali nga leen dama ne nañu lijjanti corona suuf gi nañu lijjanti corona suuf bu am ca Medina Wandifa lijjanti corona suuf bu am ca Kër Moussa lijjanti corona suuf bu am ca Tobène ca Guéréo ca Kignanbour ca bala bëggu ca Ngéyeen ca Kër Sambakan ak ñoom seen nañ ko lijjanti. donc nañu joxante loxo ñun ñëpp def benn say ndaxte kat benn benn bi état bi dafa am doole boo xam ne mënuluñ ko dara ñun ñëpp nañu def benn say.